dara beesu ci parce que 2021 toogoon nañ président wax ni je vous ai compris ñu waxoon ñu force étrangère waxoon ñu force occulte ba tey gisaguñu force occulte yooyu en 2021 des sénégalais ray nañ leen tey jii ñu rayaat leen donc li ñuy xaar ci gouvernement bi mooy que ñu am une communication de vérité wax sénégalais réellement lan moo xew et que beneen bi nga xam ne bëgg nañ ñu wax ci tey gis nañu ay nervi yoo xam ne dañuy gàddu ay machette jël ay oto yoo xam ne xam nañ fa ñu jóge et souvent dañuy officier ñëpp di leen gis kenn du ci wax donc tey ji bu ñuy wax ci force occulte mais nañ wax nervis yooyu kan moo leen yebal oto yooyu ñu wax famille jóge ñëpp xam ko ñu mettre la lumière sur ça parce que on met aujourd'hui des Sénégalais ñuy jàkkaarloo seen biir donc loolu tamit bëgg nañu le ministre de l'intérieur le ministre de la en tout cas tout le gouvernement ci question yooyu tamit